téléphone te waxoo ko lu baax lan nga koy wax xaw ma ko de mun dëgg laaj bu si mu baax téléphone bii tubaab bi da koo defar pour wuyu di waxante lu baax woote di jëriñu téléphone bii pour lijjanti sa bopp la boo ci mënta lijjanti sa bopp toj ko wala bu ko yor caméra bi li tax ñu def ko si mooy di filmer nit ak di foto ak di denc ay vidéo archive te yooyu daa war a doon lu baax léegi boo ci deful lu baax lan nga ñuy def ay saaga ndey gi wax lu bon deel wax lu baax téléphone bii dee ci tiimale nit ñi di wax lu baax. dégg naa la wax lu baax te yàlla la njëkkee. mais posé. yàlla booy wax lu baax dalay dalay yëkkati. dëgg la booy yëkkati sa bopp di booy yëkkati nit di suufeel sa bopp dalay yëkkati. dëgg la booy darajaal nit di suufeel sa bopp dalay darajaal. dëgg la booy booy booy defal nit. di ko yàlla loo def mu fay la ko. su lu baax. loo jox nit bu subaa mu jox la dix mille. boo joxee mille francs bu subaa mu jox la cinq boo waxee nit lu baax bu subaa moom moo lay yëkkatil boppam wax lu baax dafa am solo Seydina Mouhamad bu musaan ne bërëb di dem dañ koy topp di ko jiiñ di ko gañ di ko wax moom mooy kan di ko yëkkati tey métier boobu métier bu noble wax lu baax mosoo gis kenn ku koy def ko torox amut ci la saa yoo xëyee da ngay dund mais mais mais Boucher des fois gars yi tamit jël journaliste dem si dëj yi waruñu dem si fenn dëj moom ay filmé moom sa baaxut dëj moom bu leen ko filmer hmm. dëj moom da ngeen ko war a bàyyi loolu di filmer dëj baaxul. mais nit ki moo toll noonu ci génn nit ki ak nu mën a toll noonu baaxul dëj moom kenn waru ci am archive dëj moom kenn warut a jékki-jékki dugg ci YouTube naan oh sama dëju yaay wala sama dëju pàtte di fàttaliku di indiwaat yeneen bagage dëj kenn waru koo filmer dëj moom na romb rek na ñëw romb ñëpp xam mu doon benn mitit waaye chaque jour nga xool muy gën a mitti dëj moom la rek ay dëj jarul di filmer di vidéo jaru ko waaye ngénte boo dem filmel boroom yëkkati ko ndem mënalu dara waaye dara jar ko kër goo dem gis fa kilifa gu baax yëkkatil ba ca kaw ba ñu yaakaar ne yow doo dara loolu la yàlla di fay yàlla lii lay fay wax lu baax barke Serigne Touba Xaadim Rasul man ci li ma ne dama ciy kontaan maanaam di darajaal nit di yëkkati nit di wax nit lu baax mais daf ma mais sama xol da ci sedd. mais mais mais déjà des fois Boucher da ay commentaires yu négatif. ban commentaire bu ne ñu mënta njoowaan rek kay xas ñu njoowaan. koo fi yee ne ko bu subaa ni Boucher Gueye mel du nelaw. dëgg la Serigne Touba may dimbali benn taalibe Serigne Touba laa. ñaar àdduna bépp bëgg nañu ma. ñett kilifa boo gis ci àdduna nii bu sañoon jox ma loxo. ñeent fu waay ne ma ne fa. juróom fu waay di dem ci àdduna. damay dem te damay demee boo ko fekk na ngay demee ndax man damay dem sans visa yow da dem ak visa. waa jaa ngi fépp samay njaboot yàlla dimbali na ma ba teg naa leen ci yoonu siraatal mustaqim sama jabara nga toog fa mu toog di ma muñal di samay doom ñëpp macha allah karkar ci ma ñëpp passeport américain aw ma doom bu yor passeport Sénégal macha allah. ak jafe-jafe réew mi parce que aw ma doom bu yor passeport Sénégal. ñëpp passeport Sénégal américain lañ yor sama jabar kayitu américain la yor waaye fii laa leen bàyyi ci réew mi xam nga lu tax. fii moom weer. mais ak porte-parole bi nga doon Sénégal gis ak bërki démb xat yi ñu nekk ñàkk nga am kàddu yoo xamante ne ko sànni ci émeute yi nga xamante ne am loolu sama staff a nii mbëggoon sama staff yi ne dañ bàyyi ba. yëpp jàll. pour wax ci réew mi la yàq ma ne ko sama staff nee nañ. Oh. nañ bàyyi ba lii yëpp fi ne nii neexut a wax. tey kilifa nga ci réew mi. waaw allo réew mi neexut a wax fi ne. boo waxee fii ñu ne fii nga war a waxee nga waxee fee ñu ne fii nga war a waxee. nañ bàyyi ba lépp leer rek. bu lépp stable. rek maa bàyyi. Ah, kii tam dina gën wax. est-ce que nga ni moo téye réew mi moom. kaay ma xamal la xam na lu. foo ne nii. gis bu génnee def conférence de Ah? xam na lu bari de mu góor Serigne Si laa lay wax maa ngi nii appel ba naa la waat Serigne Babacar Si laa lay waat. mais tamit gis nga dem nga. waaw kàddu yi nga tamit dégg nga amul ay saa yu morom influenceur si mel ne Abano Stress xasar yi ñu leen doon xasar ku jëlee mer. xasaru lan la ñu leen doon wax influenceur nit ñi ñu yóbbu waruñu leen woon yóbbu. te nag dafa yëngal dafa yëngal kan. dafa yëngal kan bi. non mais yooyu yëpp après non non poussé na ba nga ñëwee ba non fii nii li ma doon wax nii léegi léegi. mais li nga a xam est-ce que li ma doon wax nii. mooy waxu wax lu baax. laa leen doon wax waxuma waxu comme dugg ci ak actualité waxu wax lu baax laa ko doon wax. ne ko nit ku ne daa war di wax lu baax. gisoo kuy wax lu baax ku torox wala kuy wax lu baax di xëy di am di fande. ndax yàllaa lay fayal boppam. wax lu baax méccëb suñu borom la sëriñ bi suñu borom lay fayal boppam ndax lu baax la yàlla digle lu baax nit mënu koo fay man nit mënu maa damay romb nit koo xam ni barke Serigne Touba Mbacke Xaadim Rasul mënulu ma dara ma yëkkati la ba ca kaw waaye bu ma tëddee yow yàlla fayee ma ko leneen kon mit jëb borom bi la téléphone yi dinañ ci wax lu baax di ci génne lu baax te bàyyi di génne lu bon ak di wax lu bon dinañ ci wax lu baax <laughs> dinañ wax lu baax fiis yow gis naa fasaaxa ci yow mu soo ko gis mu wax barki sëñ Touba fasaaxa bu doy waar fekk naa ko fee baara mun di wax loo ko bu la jiinee <laughs> dara la walaay dëgg la nga dugal sa yaram kon dee leen wax lu baax mu ngi يقين الصلاة أفضل الفجر محمد من رسول الله سيدنا خير baleen ma de baleen ma baleen ma yow ah baara naa ma xamu ko la yor mais affaire yi macha allah de yàlla na yokk mënta ñàkk yàlla na yokk

yaay sama goro ki la def pare juumul ki la di woon sa jëkkal dama ni may yéene jàkka nga tal nga talee jàkka nga tal jàppaa ngi nii toog